ci téeméer ak juróom benni junni doomu Sénégal yu ci jot a bénéficier waaye nag li leer ba leer moo di rek jafe-jafe bi nga xamante ne moo am ci xëyum ndaw yi mu ngi fi ba léegi donte milliards yooyu yëpp def nañ ko si te projet yooyu yëpp itam fësal na ni financé nañ ko ndax nag ndaw yi nga xamante ne ñoo génnoon ci manifestation yi mujj am fii ci Sénégal ba tiital askan wi yëpp na ni ndaw yooyu bokkuñu ci ñi nga xamante ne ñoo jot ay financement kon ak kan la ñu jot financé suñu xamee ni rek ñi ëpp ci ndaw yi wala sax jigéen ñi jamono ji ñu ngi nakarlu anam bi ñu yoree DER waaye itam di sàkku ay kont ba ci audit. geneen coowal koppar la ñu yàddu jëmale mu di kopparuk Jakarta mais nii gannaaw di yaanu Kaolack dawalkatu Jakarta ya nekk sa Bignona ñoom it ñooy laaj seen koppar nee ñu si euh, boppam euh, ma jàll ñu ko nag lu ñu génn la ndax jàppale leen ko ci mbas mi waaye France daal di xëddeen gisuñu ñu ànd seex Abdourahmane jàlloo li nga xamante ne mu tukkee ci 450 millions yu fonds force covid 19 yi nga xamante ñoom la ñu war a jagleel jàkkaarteme ni xaajul ba di jeex dawalkat ñaari ru yi nekk ca Bignona lu ñuy laaj mooy ñu andi ay leeral ci mbir mile on interpelle l'État on interpelle Macky Sall jakartamaan yi li nga xamante ne ñu bëri ci ñoom ñooy dundal seeni famille lu ñu xamle mooy ñu ngi yaakaar ci le xaalis ngir mën a def fas seeni avenir mën madd baa ngi nii mango jaa ngi nii am ñu dara luñ ko mën a exploiter. ci noonee ñu ngi invité président de la république Macky Sall mu yokk bu baax a baax xaalis bu ñu leen jagleel. moom la ñu soxla te sax bu ñu ko mënee yokkal defal ñu ko un milliard sax ñu jël. ci kanam détournement bu ñuy tudd ci yooyu le fonds jàkkaartamaan yi nga xamante ne ñoo yeewoo fii ca na ñu ngi ñaax président Macky Sall mu jénnee yatuwa su fekkente ne loolee am na. bu fekkee dañ koo luubal président Macky Sall xam na ñu ko jox. na topp ñooñu wax ak ñooñu. jakartamaan yi di dànkaafu autorité yi ne su fekkente ne jotuñu seen koppar ci ay fan yi ñu dëgmal dinañu yëglu ci yeneen anama. Aja Birahim coowal Jakarta yi sakkan na de. sakkan na mais dafa am euh, il faut savoir euh, raison garder il faut que ñu def très attention. Euh, ministre wax na ci lu jëm ci loolu. mais dafa am beneen problème boo xam ne nit ñi fësaluñu ko c'est que ñoom seen biir ñoom jakartamaan yi un partout. dañu leen loon benn kuréel ne leen da ngeen di dajaloo ñenn ñi ne dañ ciy def benn projet ci xaalis bi ñu leen di war a dugalal ñeneen ñi ne ne nañ leen ko séddale ndax ci wàllu koppar xam nañ sénégalais nu mu mel nu nu mu demee ku ci nekk natt na ni nangam lañu ci wàllu recensement. recensement boobu nit ñi di ko def gouverneur Kaolack wax na ci kanamu ministre devant président la république ne ni jotul xaalis ci gannaaw gi ñu gis ni. xaalis ba ma nga ba léegi ca euh, ministère bi ab euh, Abdoulaye Daouda Diallo yore tout simplement parce que recensement bi ñu war a def defuñu ko bu normal mais le problème qui se pose mooy waxuñu ñi waxuñu nit ñi dëgg bi ndax ñii di jàkkaartaman yi ils sont dans le droit réclamer loo xam ne dañ leen ko dikk mais ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi waroon a def lii di jëm ci wàllug recensement wala def li jëm ci wàllug ñaata lañu ñu di ay jakartaman un peu partout au Sénégal pour xam ñan ñoo ci am kayit ak ñu ci amul kayit ñooñu tamit liggéey boobu ñu waroon def defuñu ko maintenant ce qui se pose comme problème mooy xaalis am na. Mhm. am na lu ñu leen déggoon lu ñu leen lu ñu leen dikk. Mhm. mais jotaguñu ci il faut situer les responsabilité ah, ok nu situer responsabilité El Hadj coowal Jakarta meen yi gannaaw Kaolack waa biir ñoo na ñoom it ñooy laaj seen wàll. mu nekk nag lu ma àndut ak ñoom. Mhm. Euh, man bu ma nekkee koo xam dafa ma xeeb ba jàpp ma yalwaan ka toujours dama nekk ndaw tollu ci liggéey du ma nangu nga soppi ma ab mànjoom. Mhm. gis nga ndaw Sénégal aussi ku leen jëyul wax leen dëgg di leen wax ni leen liggéey leen te bàyyi seen loxo yi ngeen di tàllal ngir yaakaar gouvernement bi. Jakarta man pour lan la euh, nga nekk ni ngeen koy waxee self self nga ñafeel sa bopp pour amal sa bopp pour liggéeyal sa bopp. Jakarta coûte quatre cent mille maximum nga jéem a liggéey bokk ci ay natt am benn am ñaar Jakarta man pour bu la nga nekk magum lëndam ku la darul nga dal sa bopp foog ñu génn ci seen xel yi dimbali leen gouvernement bi di dimbali doo nekk ndaw tollu ci liggéey te yaakaar lu dul tàllal loxo. Mhm. ñu ngi fortaatu di am journée cinq mille wala journée trois mille seen laaj gi ñuy laaj laa ni du dëgg. mais mais hélas comme yeneen pays yi nu ñu ko defee pandémie bi mu ñëwee dañ génne benn budget jàppale ko ñi nga xam ne da leen impacté. suñu réew pandémie bi dafa am particularité bu ci am suñu président moo jëkk a taxaw tàllal loxo ñu ñëw leen dimbali ma. waaw bi mu dimbalee mu ni yéen après li ñu ma dimbalee dinaa leen ko dimbalee. ñu commandé ceeb war misel ak saabu mu jox ko Mansour Faye Mansour Faye séddale ko ni mu ko neexee laataa séddale ba non laataa séddale ba maam. dañu defoon ay commande ci yenn ci ay commerçant ñu yéex a indi lool ba ñu yónnee la mise en demeure mhm. te ba léegi xamuñu ñooñu fi ñu indee presse bi bind fi ñu ut ay justification ci ceeb bu xonq ba ñu doon séddale ba léegi amuñu ci lu leer waa covid 19 force fond fond covid 19 covid 19 demandé ay rapport dégg ngeen tiraillement bi ci amoon mhm. donc amul kenn koo xamante ni bii li nga waroon jot ci ndimbal jot nga ko Mansour Faye nit dinaa leen jox benn kit alimentaire mhm. saako ceeb saabu diw sucre amul kenn kenn ku mën a taxaw ni kit bi ni ñu ko ni ñu ko énuméré woon noonu cité ko amul kenn ku wax jot naa kit bi complet donc da nga tegu teguwu ci ci ci ci dëgg di début à la fin mu des nag ñu ni kon dimbalee nañu leen Covid bi lépp li tegoon ci ko askan wi teggi nañu ko. Hmm. léegi ñu ngi dox di circuler ñu ngi dem di ñëw ñu ngi daw guddi. nangam nangam nangam mais nañu dem liggéey bu ñu toogee ba léegi. ñu soog di wax ay ndimbal ñu jox ay jakarta man yow nga jënd jakarta 300000 wala 400000 ñu jox la ndimbalu 20000 francs tax nga nekk ci mbedd mi tàllal loxo gouvernement bi fi ñu leen di woo ngeen di bañ ndaw day nangoo liggéey te ba ñu jiital tàllal loxoom bàyyi leen leen a xaalisu Covid 19 boobu te yab seen i client liggéey yi. dawalkatu jakarta du tàmmal boppam waan am réew du ñu soppi askan réew ma yalwaan ay bébé ngi dee li Mm-hmm. nit dem fa au lieu mu jaale wala ñu jël ay décision soppi la indi woon lakk ga ñuy wax indi nañ fa ay aide alimentaire xanaa ñu dañoo xiif <laughs> Sénégal nañ jàmbal nañ jàngal askan wi liggéey ak détermination jàngal leen jub ak gor ak gore c'est ça la la réalité bu fekkee bëgg nañu tabax ëllëg avenir peuple bu dëgër te wóor jaajëf le député du peuple ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jot ay xibaar tàggat yaram lay doon ay ci laaj nee na Jakarta dafay liggéey Jakarta man dem leen liggéey ah, te nee na ñu wax leen fu ASP yi <laughs> nekk ñu ñu leen di maytu <laughs> pamante maa ngi leen nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Mame Ndiaye alhamdulilah tey <laughs> waaw ñoo ngi góorgóorlu waa Jam City waaw ñëpp a si jàmm nag ñu koy door basketball coupe du maire de Dakar affiche u dernier carré bi xam nañu ko waaw nit ki démb nag lañ doon amal lu jëm ci wàllum tirage au sort bi foofu